dalli nag jàmm sen seen production lega nak mën nañu kii di juma dalli nay am li nga xamante ne la jigéen ñëpp di rêvé mooy yow góor bi la bëgg ba ñëw la mariage mais sama gars yi est ce que li nga xamante ne la di mu juma dina jëm kanam ndax on peut dire que nag ki nga xam te moo nekk saaneex bu noonu waxu si dara lega te tamit soo xoolee saaneex ba mu ni di petit alkaali ñëw na si gàlle bi ba jël si ki nga xam te moo nekk juma pour ñu ànd nag dem balaade ji mën nañ gis ngeen nu mu tamit tamit euh, bëgg na si loolu noonu kontaan nag ça veut dire seen diggante boobu noonu diggante ki nga xam te moo nekk Petit euh, Alkali ak ki nga xam te moo nekk Juma rek la daal di euh, choisir mais nag sama gars yi est ce nag kii di xasaa dina am li nga xamante ne moom la bëgg mun nañu nag waa kër xasaa nag pare nañ pour recevoir ki nga xam te moo nekk soxna si mais nag contrairement ak ki nga xam te moo nekk famille Juma mais nag les gars peu importe les situations kii di Juma mun nañu nag xasaa rek la nopp xësaa rek lay topp ba tax na nag dina compliqué carrément te mën nañu ne kii di Sané du def mukk li nga xamante ne day nakaral ki moo nekk juma li ko neex rek lay daal di choisir moo tax nag léegi kii di ya Sané nag nar naa retrouvé wu si situation boo xamante ne du xam lan lay def mais nag peu importe les situation kii di euh, juma moom xësaa rek la nopp ba tax na nag euh, foofu noonu dina compliqué trop dina métti trop mais kii di xësaa dina daal di retrouvé wu ki nga xam te moo nekk jabaram léegi moo tax nag euh, balaa ñu gën a sori da ngeen di abonné te activer cloche bi bañ a tardé vidéo bété bété la woon annonce analyse épisode 39 euh, jaa ngeen jëf léegi